asalaamaaleykum yow doomu aadama xamal ne xol bi dëddu àdduna génnee ko ci biiram xol boobu mooy yittewoo boroomam moo koy soxlawoo te moo koy aajowoo saa yoo dëddoo àdduna rekk faaw sa xol day yittewoo sa boroom daf koy soxlawoo ndax dootu ko mën a ñàkkati ci misaal mi ngi mel ni sa bakkan boobu rekk saa yoo xiifee mbaa nga mar faaw da nga yittewoo lekk mbaa nga yittewoo naan dootoo mën a ñàkkate lekk dootoo mën a ñàkkatee naan ndax danga koo yittewoo danga koo soxlawoo noonu nga xamee ne nii nag sa bakkan dafa am ak dundam muy ak lekkam wala ak naanam noonu la sa xol amee ak dundam sa bakkan ni muy aajowoowee dundam googu muy lekk googu ak naan googu di ko soxlawoo jamono bu nekk ak fu mu toll xol bi dëddu àdduna itam noonu lay soxla woowee ak dundam muy ak lekkam di ak naanam te muy suñu borom subhanahu wa taala dundu xol moom mooy yàlla subhanahu wa taala mooy leerug yàlla subhanahu wa taala ndax alaa bi dikrillaahi tatma inul xuluub zikkar moom mooy dundal xol leerug yàlla moom mooy dundal xol